Okay. boy yow sa ko ndaw. waay booy waxuma yow. lu tax nga fay. fayal. looy génn baay. looy génn foo jëm. sama gaay sa gaay yi. sama gaay yi fréquenté fii. ngi bëgg a ¿eh? de. waaw lu ma génn taxawal da xam nit lu bëgg ma tos bii kër gi rek. mel ni ku nekk prison. come on Kai, Kai, Kai. come on man foofu lan come on man yow dama dégg fan yii yëpp nag léegi yow temps yi da nga dégg anglais quoi léegi lan mooy common man. xaw good. Boy, booy lan come on man. How ma ko. I don't know. yow doo dem quoi di wax ay baat yoo xam ne xaw ma. maa ngi jël laaj. booy ba na ngay dem nii doo toog. dañ Bye. King. Yo, yo, excuse me. Hey, hey, stop. Hey, stop. Stop. What? This police. Show me your ID. Yeah. Show me your ID. I know English. Ah, What language? I speak Wolof. Oh, yow comme Sénégal nga? Yeah, Sénégal la. Ah. Ah, ma ne wan ma ID ID comme carte d'identité. ah carte d'identité nag sama kii bi lijjanti bu ma ko def amu carte d'identité moom xam naa rek la ma yaatu ma faa. foo dëgg da ngay libéré rek dem ndax man ko saa yoon non si damaa nekk si liggéey amul libéré heure bi baaxul di génn di dox wax wóorul. ah kon léegi nu muy demee ah, kii ba rek. fos oto baa ngi ne kay. ah moom day xaw a yéeme trop yow naa bi tuuti weccet kay. saa yow ku baax loo bëgg a def nii. ma rek xaar ma rek xaar ma rek ma am ma def ak yow kii rek man ko man yoruma këyit te laa fi yoroon ci restaurant bi laa comme que kii na rek nga di jéem a jàpp si lii. te lii delloowaat fi mu jógee delloowaat fi mu jógee dama lay wax delloowaat ko fi. nga xam ne lii indi ñu fi ñun dañuy liggéey yëfi Sénégal yi amut fii yow yaa ngi génn heure boo xam ne waroo koo génn déjà ma lay kii nga ma jéem a corrompre di ma wan ay xaalis naan ma patati patata yow il faut que ñu dem kii ñu delloo yoon ndax sa seen classe gi la ñuy jël di leen delloo ji Sénégal yow amul benn kii lëgaaloo fi lëgaaloo fi dara dara dara. nga jàpp rek. déedéet. man de. non jàpp sama mu yëg moom bari ci gi mu neex nga bëgg ma yóbbu Sénégal si rek jàpp si rek yaataan si lii rek jàppal si lii man ma bañ a lekk sax moom ma gënal dem Sénégal ma bañ a lekk sax moom ma gënal dem Sénégal jàppal si lii rek jàpp si rek yaataan tax jàpp jàpp si rek jàpp si rek sa waay wax ji bëri na dugalal sa lii nga ñëw ñu dem jàpp si rek billahi jàpp si rek jàpp si rek